mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fas yéene weccanteeg yéen kàddu yu gàtt euh, fii ñu nekk muy diwaanu Sigicoor gis ngeen ni sànq leaderu Yewwi Askan Wi waxtaan nañu ak yéen li tee ma teew foofu mooy tey ci suba laa dellu si Sigicoor te liggéey bu jàmp euh, woowoon ma fi moo tax euh, jotuma fekke waxtaan wi foofu waaye li ñu waxtaan am na solo ma jàpp ni kuy leader ci yoonu askan wi yeewi askan wi rek war nga cee mun a am loo ci yokk ci sensibilité bi nga ci am moo taxoon ñu ne nañ def live bu gàtt bi ngir waxtaan a yéen parce que dañoo toll ci jamono joo xam ne jamono ju doy waar la pour suñu réew Sénégal muy jamono joo xam ne mën nañ fi jóge réew mii jël yoon gu baax ba faw waaye mën nañ fi jógee mu nërmelu ba faw te lépp mi ngi dépendre ci taxawaay bi kenn ku nekk ci ñun sénégalais waxuma militant waxuma partisan waxuma leader politique waaye man sénégalais laay waxal fi mu toll nii waxuma leader politique boo xam ne peut-être di ko gën a yitteel léeg-léeg mooy lan mooy dem sa sam place ak lan laay am ci mbir mi moom militan bi nga xam ne moom dafa seey ci mbir mi ba jeex ci waaye dañu toll ci waxtu boo xam ne képp kuy sénégalais rek na nga xam ni lii am ci fan yi di ñëw lii am ci weer yi di ñëw dina déterminer sa nekkin ak euh, sa place ci réew mi waaye ci àdduna bi ci at yu bëree bëri bëri yi nga xam ne dina ñëw ci kanam mbokk li xew mooy Macky Sall nee na yeewi askan wi du bokk ci élection yi bu ñuy tënk wax ji rek mooy Macky Sall moom ak administration dañoo décider te teguñu ko ci yoon teguñu ko ci li nga xam ne moom lañu xam ci cosaanu élection waaye ragal gi mu ragal ak li ko sondage yi jox mu xam ne bu élection yi demee jaar yoon rawatina yeewi askan wi yaatal géew gi ba ànd ak geneen coalition boo xam ne it euh, coalition bu am doole la muy wallu mu gis ni bu ñu taxawalee élection yi ni mu war a jaare amul fenn fu mu mun a jaar moom ba gañe mu ne dina jaar ci administration en naa ñuy xam nag lu justice di wax ndax xam ngeen ni conseil constitutionnel tey ba fii ak tey minuit war na attu addu ci li nga xam ne mooy recours yi yi ñu déposé ci tableau mu ne fi mu toll nii tembe dina ko jaarale ci administration jaarale ko ci ki ñuy wax commissaire Abdou Aziz Sarr waaye boobu bettuma mu jaarale ko ci ki ñuy wax commissaire Ndiaye ak ku ñuy wax monsieur Niang dafa am solo parce que Sénégal dafa jot nit bu def ñu wax ni mooma parce que du ñu dëkk ci réew mi taal réew mi ba pare dem toog ne jàpp seen ñàmbur mel ni bokkuñu si déedéet dafa jot. ñuy identifier ñi nga xam ne ñooy taal réew mi ci teguñu ko ci dara dul seen bakkan ak poñ poñetu àjjuna na ñu leen di jox ak post boo xam ne boo ko seete ba ci biir sax amul solo ndax post post fonction publique kese la mu ngi ko jaarale ci ministre de l'intérieur nga xam ne mooy Antoine Diome boobu it bettuma ndax ñaare ñi nga xam ne dañoo jàpp ni dañoo am une revanche à prendre sur leur propre histoire ils sont prêts à tout pour ay post ak ay rôles li may wax ñi xam-xam nañu mu ne donc da koy jaarale ci ñooñu gannaaw bi mu forcingé élection bi mu fi toogeeg léegi sénégalais yu bëree bëree bëri bëri gëm nañ ni Macky Sall musul gagné élection lu weesu 2012 ci boppam la ca des yépp ay mboxum la waaye est-ce que dinañu continuer di ko seetaan mu nekk ci loolu est-ce que tey war nañoo nangu Macky Sall imposé ni ñu moom listam yi nga xam ne dafa waroog yoon dafa violé yoon ñeneen violé yoon ñu dàq seen liste boobu tey mënuñoo bokk te doorul tey bu leen fàttali ni 2019 éliminé nañ fi ay candidats teg ko ci parrainage deux mille vingt deux bi éliminé nañu ay par ay candidats teg ko ci parrainage lan moo war a tax moom Macky Sall ak ñi mu àndal gannaaw bu ñu jalgatee yoon ci parrainage ñu ne faw ñu jàllale seen dossier moo tax ñi wax naan nañu ut solution nañu dajale nit ñi ñu waxtaan ut solution bàyyi ñëpp ñu ànd ñu dem loolu du wax parce que li Macky Sall def moom ak coalition keneen ku ko defoon génn nañ la ca coow du am. lan moo waral moom su doonee moom ñu ne faw tey ñu jàllale ko parce que am na ñu gëm ni élection warul mun a am Sénégal sans Benno Bokk Yaakaar loolu mooy lan Benno Bokk Yaakaar coalition la comme ñeneen ñi ñu nekkee coalition bu jalgatee yoon dañ koy génne ci élection bi ñi ci génne ci élection bi ànd nañu su bëree ba bëri dañoo bind dem justice ne d'accord ma bu ko defee conseil constitutionnel wax lan moo tax moom Macky Sall ñu ne tey forcément coalition bi dinañ def dinañ jàll ci élection bi. ba pare wëlbatiku ne dañuy galgal yeneen élection yeneen candidat yeneen coalition bi duñ dem élection ci lu tegwul ci yoon duma dugg ci débat technique yépp juriste yi wax nañ ci ñaari fan yi weesu constitutionnaliste yi wax nañ ci spécialiste électo euh, élection wax nañ ci léegi léegi conférence des leaders wax na ci moo tax wax ju bëri yi jaru ko xam ngeen lu fi des mooy laaj gi may laaj kenn ku nekk ci Sénégal ndax d'accord nga Macky Sall dem moom dong ci élection gagné assemblée nationale samp ndëndëm pour toogaat fi vingt ans wala trente ans moom ak famiyam loolu mooy question bi loolu nag du mbirum Ousmane Sonko du mbirum Khalifa Sall du mbirum Déthié Fall du mbirum ab si du mbirum euh, sëñ Cheikh sëñ euh, Moustapha si du mbirum képp koo xam ne yaa ci coalition du mbirum coalition wàllu waaye mbirum kenn ku nekk ci Sénégalais yi yow taximan bi xam nga li ngay daj yow infirmier bi xam nga li ngay daj yow jàngalekat bi xam nga li ngay daj yow euh, ménagère bi xam nga li ngay daj yow transporteur bi xam nga li ngay daj yow étudiant bi xam nga li ngay daj yow mi ne ci diaspora bi sax xam nga li ngay daj ndax bëgg ngaa dellu te munoo dellu si ngir yorin gu ñaaw ñu am chance historique jëlaat suñu réew moomaat suñu bopp parce que loolu mooy enjeu buñ ko fàtte mukk nag parce que léeg-léeg ñu réeral ñu ci ay wax yu amul solo nit ñi topp ci médiatisation bi ba ñu fàtte ni coow li nekkul foofu jamono ji ñuy toog naan diw wax na lii diw def na li diw diggu na fii Macky Sall mu ngay jaayaat suñu gaz gis ngeen tey nee nañu deux mille vingt trois décembre deux la ñuy commencé production bi c'est-à-dire bu ko desee weer pour mu abal ñu ci réew mi te ma ngi cay waxtaan gis nañ ni mu jaayee woon contrat yu njëkk yi xam nañ ñu ko raw wala nu ko yées lay lay jaayee lii loolu mooy enjeu yi tey yow mbokk mi est-ce que pare nga pour seetaan loolu est-ce que pare nga pour seetaan réew mi jamono joo xam ne dénk nañ leen suñu réew dénk leen suñu kaaraange jox leen police jox leen gendarmerie jox leen armée jox leen renseignement généraux jox leen lépp ñu wëlbati ko loolu yépp di xool nu ñuy comploter ay opposants ni ñuy xeexee opposant ni ñuy tëjee opposant ni ñuy tëjee activiste ba tey ñuy rendi ay nit ci mbedd mi comme ni ñuy rendee ginaar nga gis ko moom bu bu nit faatoo Maroc wala nit accident France mu bind condoléance waaye doo ko dégg mu àddu mukk bu ñu rendee ab sénégalais fii wala bitim réew ci anam yoo xam ne kenn mënu ko layal tey loolu mooy enjeu bi est-ce que yéen Sénégal est-ce que yow mi may waxtaanal pare nga pour loolu laaj bi nag yéen ñëpp am ngeen tontom moo tax wax ju bëri ji jaratu ko dama leen yàgg wax ni Macky Sall faw ñu xeex ak moom mu jóge ci Macky Sall du fi jóge ci jàmm parce que xamul jàmm ab baadoola boo ko ajee cib njoowaan di ko bëgg a wàcce mu jafe wax naa leen Macky Sall jàmmarloo moo ko fi jële parce que xamul beneen langage loolu nag askan moo ko mën du mbirum benn nit du mbirum ñaari nit moo tax li ñu wax dana ñu daje ak askan wi may woo bépp sénégalais nag jiital jiital ci militants yi ak sympathisants yi waaye bépp sénégalais buñ ko wootee ak foo ci nekk ci Sénégal na nga dox jëm Dakar ñu dajale deux cent mille personnes lu ko raw dégg naa léegi conférence des leaders ñu dañuy waxtaan. expliquer weesu nañu phase explication ay décision lañuy jël foofu décision bu ñu fa jël rek ñu bokk ko ñun ñëpp jël dinañ ko appliquer bu ñu jëlee décision dañuy dox dem pale jëlee fa Macky Sall dinañu dox pale jëlee fa Macky Sall ci nii wala ci nële foofu lañu ñu toll ci réew mi kon dootul jamono ju ñuy toog fii di laam-laame di wax jamono jëf lañu toll yéen nag waa APR yor ngeen seen làmmeñ sàcc alalu réew mi di jënd ay journalistes inondé les médias lu ne ngeen wax ko ci lu ñaaw ak lu bon recruter ay nit teg leen ci kanamu ay écran ñuy bind suba ba ngoon jot waaye buñ ci tollee na ngeen dëggal seen bopp parce que réew mi ñoo fi dëkk xamante nañu xamante nañu ñoo dëkk ci réew mi bu ngeen foogee ni mun ngeen toog ci kaw nit ñi di leen li ngeen leen imposer ku wax ngeen yooxu ku wax ngeen saaga ku wax ngeen ni da ngeen koy tëj ndax ngeen seen bopp bu réew mi naree tàkk yéenay njëkk a tàkk foofu lañu toll ci dëkk bi may wax nag particulièrement la jeunesse amul exception takku leen jóg foofu lañu ñu toll ay appel à insurrection nangam man maa wax li ma wax et je Macky foog na ni dem na ut ay armes anti ay ay pour réprimer ay manifestations changer commandement foog ni mun na noot nit ñi ndax na boppam dafa ne lu fi amoon dootu fi am gëm naa loolu ci moom surtout waaye fitna ku ko taal doo ci mucc te foofu lañ ci toll ci senegal seen avenir nag la Macky Sall bëgg ak hypothéquer ci caaxaan. ndax lu toll ni élection nga ne coalition bi nga xam ne tey moo ëpp doole ci Sénégal sénégalais yi am ci yaakaar nga ne ci ay pexe yoo xam ne laluwul ci dëkk dinga nga ko génne ci élection bi yow dong nga dem si élection loolu su ko sénégalais yi nangoo it te foofu lay daanelee ndax wax jëru muy gudd toll nañ foo xam ne ku nekk dafa war a jël responsabilité lu waaye nangu rek te di magum jëm na ko assumer du mbirum Ousmane Sonko du mbirum Massamba du maram mbirum Mademba dañoo toll foo xam ne kenn ku nekk dafa war a assumer responsabilité kon ndaje boobu buñ ko wootee na Sénégal yëpp génn nañ fa jël ay décision ci li ñu war a def su dee jàpp nañ ni matu ko ñun ñëpp ñu ne matu ko bu dee jàpp nañ ni mat na ko ñu xool lan lañ ci war a def toutes les solutions sont envisageables parce que foofu lañ ci toll lii laa bëggoon waxtaan ak yéen ci lu gàtt di daaneel ci wax leen nag ni ñu ngi essayé nërmal xel yi ñenn ñi sax ci biir opposition bi nga xam ne Macky Sall la ñuy liggéeyal bëgg a gëmloo nit ñi ni Yewwi Askan Wi mu ngi négocier ak Macky Sall bu desee kenn ku dul mës a négocier ak man de Ousmane Sonko ci la bokk ñi àndoon ak Macky Sall bi muy nekk opposant ba fal ko mu nekk ci gouvernement jox leen ay ministère ñu nekk ak moom mu leen di fay ay su ñuy wax ñen ñen ñooy négocier opposition ci ñooñu la ñu war a dem xool ñun négocier wu ñoom Macky Sall te àdduna du dox ba ñu négocier ak Macky Sall la ñu wax dafa leer benn élection bi kenn du ko dàq dinañ ko te dinañ ko amal ci délai bi mu war a amee ñaareel bi mooy loi bi nañ ko appliquer niñ ko war a appliquer su waree dal ci Macky na dal ci Macky ci war a waree dal ci Yewwi dal ci Yewwi su waree dal ci keneen dal ci keneen waaye def nii kumba am ndey kumba amul ndey loolu jeex na senegal loolu nag mooy li ñu waroon wax ci lu gàtt di anticiper nag di wax ci ñi nga xam ne Khalifa Sall wax na ko léegi senegal dëkk bu métti la boo waxee ñu ne dafa dëgër boo waxee ñu ne wax ji neexul ñi nga xam ne tànk ki yor bant ki yor yet gi tant que mu ngi yor yetam di dóore fi ñu toog duñ fa duñ fa bouger duñu wax de waaye ki ñuy dóor bu feqatoo rek ñu ne nitu fitnaa ngi nii may wax yéen jeunesse su Sénégal bu leen déglu ñooñu yéen intellectuel Sénégal yi bu leen déglu ñooñu yéen transporteurs yi commerçant yi yéen euh, diaspora yéen keneen ak keneen bu leen déglu ñooñu parce que réew mu mës a baax rek dafa am génération bu jël responsabilité foo dégg ñu ne révolution dafa am ñu jël seen responsabilité ñun sax wootewuñu loolu waaye dañu ne réew mi charte yi fi nekk te moom moo may Macky Sall mu dem ba gagné élection Ablaye Wade nangul ko ko mu dem yoonam charte yooyu la ñuy continuer appliqué ba deux vingt quatre gën saa gudd nag laa wax ñu ne keneen gagné na ci anam gu leer Sénégal yi wóolu nañ keneen moom mu jël ay bagages am dem leneen lu mu bëgg a def nag yenn fitna. te moom mooy ci ci moom ci boppam la fit yi di njëkk a dal lii lañu buggoon waxtaan ak yéen ci lu gàtt ngeen jéggal ma parce que dama jàpp ni dafa am waxtu yoo xam ne du waxtu nekk fii di laam-laame ak di wax ay langage yoo xam ne déedéet Macky Sall xamul loolu tant que defuñu front jàkkaarloog moom li mu li mu yéene dina ko def te administration dina ko nangul nangul na ko ba pare justice dina ko nangul parce que lan moo tax administration gaaw képp kuy opposant mu notifié la ci loo xam ne sax dëppoo la ak yoon tey ba tey ji notifié gul Benno Bokk Yaakaar lan moo waral loolu waa direction générale des élections kon Macky Sall fi ma bëgg a jëm suñ ko arrêté wul dina fa dem conseil constitutionnel dina valider listam daal di invalider suñu liste bu ko sénégalais nangoo nag man Ousmane Sonko dinaa ñëw toog fii ma toog Ziguinchor gérer sama mairie jàpp sama ñàmbur ñu seetaan leen ak Macky Sall ba xam fu bë gët di mujjee wànnent ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah